asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo akub ziar akub ñaan di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp ci teelub lislaam mu mën koo def ni mu ko bëggee te nu ak moom di yëkkati nuyoo nag ci turam. bu ànd ak ak ñaan ak ak ak ngërëm ak cant di ko teg ci loxob sëriñ maam sëriñ maam Thierno moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ngir mu jottali ko ci mbooleem daayira waa Taysirul Asir di am mbégte mu rëy ci ñëw ci turu sëriñ bi teew ci jataay bii muy jataay bu am solo boo xam ne yëg-yëg bi ñu fi am mëneesu ko misaal ngir yu baree baree bari muy dëkk bu tedd bi ngeen ñëw muy ci fan yii ngeen fi ñëwee muy safar nga xam ne xew-xew yu bari ci lislaam daf ci xew waaye nag bi ci ëpp solo muy bii nga xam ne moom la ñuy jëfe ndiganul Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu ci santale ko boroomam ci tukki bu tedd bi nga xam ne bi mu ci tukkee ci la ñu indil sëriñ bu doon bii nga xam ne ba na du jeex kon loolu yëg-yëg lañ am boo xam ne mënuñu ko wax waaye nag ñu teew itam ci barab boo xam ne mën nañoo wax ne mooy Touba mooy ci daara ji ndax Touba daara la sëriñ bi mu ngi koy sañ ci daara la sañcoon daara yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daara yi lislaam joo xam ne dafay defar nit ngir mu texe àdduna texe àllaaxira li nga xam ne rek moo fi indi woon sallallahu alayhi wa dañ koo indi woon ngir mu jàngale jàngale nag ci daara lañ ko defe kon Touba daara la sëriñ bi ñaanoon fi bayit yu bari ñaan fi lu ne te lépp lu mu fi ñaan rek borom bi subhaanahu wa taala defal na ko waaye daa ñaanoon nag mu doon dëkkub xam-xam di dëkkub jàng di dëkkub xamle di dëkkub xalaat di dëkkub indi li nga xam ne moo taxoon wala jëmmal li nga xam ne moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala bindunu wajaxlu daaban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa wa maskana al irchaadi wa taalimi wa maskana waaye wajaal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi ñu ne ñu ñëwaat ci barab boo xam ne itam daara la joo xam ne li ci jiitu mooy daara alxuraan ku ne xam na ne liggéey bi daara la joo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko defal sëriñ bi ba noppi ndax moo wax ne sunu borom defal na ma jàngukaay boo xam ne bépp xam bu am njëriñ des ko fay jànge képp ku bëgg a jàng mën na ñëw jàng si fa waaye loo fa jàng na ngay génn nag yaatal ko ba ñëpp mën cee jariñu bil mustapha lii bana al quddusu madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabdu bana sunu borom defal na ma ko ba noppi waaye fu jamono toll nag day toll foofa ku ne xam ne ne sëriñ bi ñim ñaar yëpp daf leen a defar waaye daf leen a jàngal ba nu xam mu jox leen digal ñu dem di jàngale jiwaat mboolem ku mas a fa nga jóge woon fa mu la yebal ba nga fa demee liggéey boobu yi nga fa doon wéyal mboolem njabootam gi itam ci loolu lañ nekkoon mboolem ñi nga xam ne ñooy bokk yi àndoona moom ñëpp rek ci loolu lañ nekkoon te loolu moo doonoon li fi indi woon sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu mualliman dañ maa indi ngeen ma jàngale sëriñ bi wax ne daara jii suñu waram defal la ko bu ñu xooloon rek ca njëlbeen ga tàmbale ca Cheikh Moustapha al Karim mi ko njëkk a wóotu booba fi Tuubaa tàlloon ay benn benn kër la woon waaye daf defoon daara indi sëriñ Habibullah mu di fi jàngale loolu di wéy ba agsi ci sëriñ Falilou bi mu yeggalee sëriñ bi jumaa ji daarul maarif al islamiyya la njëkk a ubbi ñu di fa jànge xam-xam ba fii mu nekk nii daara jaajoo nga fa Cheikh Abdoulaye Lahad mi nga xam ne moo tàmbali woon naal wu mag wii moom itam moo waxoon ne danaa defal sëriñ bi ab université université mooy jàngukaay waaye mboolem ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu gannaawam ñoom itam ci loolu lañ nekkoon Cheikh Salih ku ne xam ne taxawaayam xel koom waaye ku ne xam ne li nga xam ne itam amoon na ko fii ci taxawaay bi amoon ci daara ji ak ci mboolem yeneen daara yi nga sa xam ne sañc na ko waaye Cheikh Abdoul Qadir li muy gàtt gàtt moom naka jekk moom ci la nekkoon ci jàngale nekkoon waaye mboolem nag ñi nga xam ne itam mooy sëtam yi ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu gannaawam ku demee ne sëñ euh, Cheikh Mouhamadou Lamine xamal nañ yéen a jëm amoon fii Cheikh Seydi El Mokhtar xamal nañ yéen a jëm ci amoon waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ne naka jekk nag mu àndoon ak ñoom liggéey boobu yi waaye njabootu sëriñ bi nga xam ne jotuñoo toogee jataayam itam ku ci ne ci loolu la nekkoon ñu ngi fii ci Madiana Cheikh Chouaïbou a ngi woon fii borom xam-xam yu bari ci dëkk bi fa lañ jànge alquranul karim waaye fa lañ jànge xam-xamu diine Cheikh Abdoulahi Daaru Rahman nga xam ne bu ñuy wax formation professionnelle moom it am nañ ci wàll fii waxtu ne moom laa leen di jox misaal noonu nga koy toppee rek ci njëriñ njabootu sëriñ bi waaye Cheikh Mouhamadul Mourtada góor yàlla moom itam ku nekk taxawaayam kenn dutu ko wax gis ngeen li nga xam ne moom la def noonu rek njabootu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Lamine mi nga xam ne ñeen fukki at ak ndàngam la fi ne waaye ba fii ne booy bind booy jàng li mu bind da ngay defe ne def na fi téeméeraat te ci ñeen fukki at la la nekk la nekk ci jamono nga topp ko noonu ci njabootu sëriñ bi yëpp ci loolu lañ ko Cheikh Mouhamadul Bachir kenn mënta wax ci taarixu Cheikhul Xadim te delluoo ci minanul baaxul baaxil Xadim ak na nadim mu bokk ci ñi sëriñ bi defaroon ñoom it ma wane ne ci loolu lañ nekkoon kon lii day jëmmal liggéeyub sëriñ bi waaye mu wax ne sunu boroom defal na ma ko kon day firnde wu ne waxtu wu ne nag fa jamono toll lay toll Cheikh Mahamadul Muntaxa nag bi mu ñëwee wax ne moom benn yitte bii la am mooy àggale wala yàggali liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyub Cheikhul Xadim bi nga xam ne ku dox nga ci la tolloog sa jamono ndax bi fi ku baax làqu làqoo sëriñ Mbàkke Bousso dafa bindoon am mbind wax ca ne ñetti mébét lañ xam ci sëriñ bi yoo xam ne ñeme nañoo wax ne bëgg-bëggam la woon ndax lu ci ne daa am firnde mu bind ko mooy siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe farata xaj siyaare ji soppeem ba sallallahu alayhi sa sallam tabax jumaay Touba waaye tabax jàngukaay bii jàngukaay bii nag sëriñ bi ci boppam jënduloon na ay téere booba ni téere jafe kàggu la wutoon def ko ngir bëgg ñoo xam ne ñoo moom la ñuy jëfandikoo bu ñuy jàng ci daara ji waaye loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha mii firndeelaat na ko bu yàggut la yoon ni ndaw mu dem ba Égypte nga xam ne dañ caa def loo xam ne liñ soxla ci téere lépp dañ ko laaj ca Maroc laaj ko Beyrouth laaj ca Égypte xool fu ci gën a baax gën a dëppoog li ñu soxla ñu xool ne Égypte la waaye bañ ko commandé sëriñ bi daa yebal ndaw mu dem ba foofa def fa weer tànn liñ soxla ci téere lépp nga xam ne moom la ñu war a jëfandikoo ci jàngukaay bi mu jënd ko indi te loolu Cheikhul Khadim defoon na ko ca booba ba mu diglee liggéey bii kon la lay firnde ne fu jamono toll sëriñ bi toll foofa yéen na ngeen am tawféq noo am tawféq laay wax ci jàpp ci liggéey bii ndax lu sunu borom def la ba noppi fii jamono toll nag ngeen am tawféq yi ñëw ànd ak sëriñ bi liggéey boobu ndax ba mu ko yëkkatee ñëpp a jóg ku nekk rek sa kàttan bu ngeen xoolee fii nu jàkkaar lool suñu am di xadifaal moo fi njëkk def bâtiment bee ngeen di seen miir bi nga xam ne Cheikh Abdoulaye Lahad moo ko fi defal bi ko sëriñ bi waxee ne daa bëgg ñu yeesalaat ko dana sëriñ bi dee su ko defaraatal lu yees la ñu indiwaat daa daane miir te bi mu koy daanee ñëpp jàppoon nañ ne lii moom moom xanaa pentiraate ci des waaye moom moom baax na waaye da ko di defaat fi li ngeen jàkkaarloon teewut mi ngi wéyal ab liggéeyam fee bâtiment bee ngeen di seen muy jàkk jee sëtub Cheikh Mamadou Bachir di Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Hakim moo ko def ak fajukaay bee bâtiment yii leen wër bee ca waa bee ci topp waa Touba ci kanam mooy ñee di waa waaj noppi ñoom itam ñoo ñëw sasu ko defal ko fi Serigne bi bâtiment yii leen wër loolu ci juróom-benn mbooloo moo xam ne ñoom li ñu tuddee opérateur économique yi wala homme d'affaires yi murid yi ñoo ñëw ni sëriñ bi dañoo bëgg jàpp ci sa liggéey bi ànd kook yow ndax sëriñ bi daa waxoon ne kat moom moo saña a sase waaye yàlla bindewu ko topp bi sas mu ne dama bëgg nu leeral liggéey bi nu xam ne liggéeyub sëriñ bee ku ci ne nag jàpp ci sa kem kàttan sa kem kàttan te loolu mooy booy liggéeyal yàlla sëriñ bi jàng na fi léegi aaya boo xam ne defe naa ne buñ ko buñ ko déggee rek doy na sëkk jataay bi dafa jëm mooy jataay bi firndeel ko waaye mu wax ne ne kenn ku ci ne sa kem kàttan rek ndax yàlla boo koy lebal wala nga koy jëfal ndax moom moom lépp kon kenn du ko lebal waaye baat boobu la jëfandikoo man da lazi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifuhu lahu adaafan katira te nu ko neex nag lay fule rek boo lebalee yàlla sa kem kàttan moom bu la koy fulal day bari bari ba kem kàttanam ak kem coobareem rek la lay faye kon nag bu ngeen ñëwee jàpp ci liggéey bi nekk ci biir sas yi nag nga xam ne fii moom mooy sas yi ñu tob bi nga xam ne moom ci biir sas yooyu ngeen ñëw jëf fi jëf ju rëy waaye nag léegi des nga xam ne sëñ Abdou Lahad Ka la ko sëriñ bi di loo mooy mboolem murid yi nga xam ne kenn ku ne fa sa kem kàttan toll ñëw nga ci sëriñ bi joxal ko ko sa bopp wala fa nga tënk koy buntu ca sëriñ ba dem nga fa yëkkati sa àddiyee jox ko wala mbooloo mu bokkub daayira nekk ci gox di def bu dibéeree wala bu ay alxamese moo xam guddik alxames ñu daje jàng xasida yu neex yi ngeen doon jàng nga xam ne bu kenn bëggul ngeen bàyyi buñ fa jàngee ñaan fa te xasida yi lu sunu borom nangu la ba noppi moo tax mag ñi dañ daan wax naan bu ñu koy ñaan nañ ànd akook laab te teew teew lu sunu yéene te luñ bëgg ñu fas ko ci xam ne ñu ci fas sunu borom def na ko ndax sëriñ bi moo wax ne lépp lu ma bind mu niru lu may ñaan wala lu may sàkku na ma ko bindee la ma ko sunu borom defale wa na annahu jaala maa katabtu kama katabtuhu wa maa talabtu loola kon mooy xasida yi ngeen doon jàng kon bu ngeen ñëwee tobbi fi sas wu toll nii amee ma amee solo nii liggéey ko liggéey bu toll nii loolu tawféex la ndax lii liggéey la buy dem ba ba ba ba soob sunu borom subhaanahu wa taala du du fi jóg mukk ndax li feek ay doomu aadamaa ngi noyyi ay nit di fi jàng fii alquranul karim di fi jàng xam-xam bu am njariñ bépp xam-xam bu am njëriñ waaye na leen wóor ne képp koo xam ne toog na ci mbaar mii tuyaa ba jë sunu borom di fay ka tabax jàngukaay ba kenn ku nekk ci yéen dana ko fay ndax noonu la toll moom li ko nit jaam bi am la koy lebalal waaye buy fay lam koy fay la koy fayee wax naa ko léegi ci liggéey bee sëriñ bi defal boppam nga xam ne amul beneen yitte luñ ko jox fee la ko jëmee waaye ka am dërëmam dugal ca moo ko am téeméeri junni dugal ca ka ca def fukki téeméeri million wala ka ca def milliard ñoo yamub yool fa borom subhaanahu wa taala ndax ñoom lañ am lañ jox yàlla waaye bu leen di fay nam toll lay fayee kon ku ci ne am nga yool tabax mu jàmmaa bii nga xam ne complexe lañ ko tuddee ngir yu bari yi fi dajaloo kon li ngeen def lu rëy rëy rëy la waaye nag mu am leneen lu mu symboliser mu am leneen lu mu jëmmal mooy ne Serigne Touba sunu borom da koo nangul jox ko lépp xazaa'inu rabbi futtihat lii loolu mënees na koo firi fii waaye li mu wax ne itam eh, illaya qaadalaahuma lam yakuni wala yakunu abadan li ni ku ne mën nga ko firi sa bopp fu ne mane mënees na ko faa firee waaye jataay bi mën na ko firi ndax di ndaw macha allah toll ci buntub sàkku xam-xam ak tollu ci buntub àdduna sunu borom xiir leen ci ngeen di jàng waaye di jàng nag njàng ma gën a xariñ di ko jàng ca école ya nga xam ne tubaab yi ko fi defoon dara boole lewoon wu doon lu wu doon dara boole wutoon wu leen woon ak sëriñ bi lu nu defe ne njàng maanaam liggéeyam bi bu jógee ñoom seenu seeni pexe ak seeni xalaat dana naax saay ndax liñ bëggoon mooy soppi nuy tubaab ñu gëm lañ gëm di xalaate nañu xalaate di defe li ñu defe waaye loolu seen jataay bi wane na ne amuñu ko jël ngeen xam-xam ba ndax xam-xam yàllaa ko wàcce ci kaw suuf fu ko jullit fekk mën na ko jël jariñoo ko kenn moomu ko làkk bi itam yàllaa bind làkk yëpp mag ñi li taxoon ñu bañ tubaab bi mooy jikko ja ak jëf yu bon yi nga xam ne jëf na ko sëriñ bi te noo yay ñun ñi tey lañ leen gën a bañ ci loola waaye nag xam nañ ne la ci mag ñi doon ragal sëriñ bi teqi na ko mooy dindi na jikko ja jël xam-xam ba jox ko njabootam te xam-xam bi yàllaa ko wàcce woon dañ ñu caa njëkkoon rek waaye moomuñu ko ngeen jël ko di ko jariñoo lii yëg-yëg boobu la am rawatina nag nii ngeen doon yëkkati xasida yi alhamdulilahi rabbil alamin da ngeen xam ne suñ xol sedd na guy suñ xel dal na itam suñu xel dal na waaye am ngeen tawfiq ndax lii ni ma ko waxee dañ koy bind ci histoire yéen ñii kenn ku ci masa bokk ci liggéey bii wala ma def ci dërëmam danañ dem ba sëriñ bi ba mu tàmbali ki bi ñetti téeméeri at la waxoon bu boobaa seen i sëtaat wala seen i sët yàlla nañ ci fekk lu bari naan diw mii de sama maamaati maam la woon wala sama maam la woon bokkoon na ci ñi taxawal mbaar mii bokk ci liggéeyu Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu kon lu rëy rëy rëy rëy cant gu rëy la teyit suñu borom ni ma ko waxee buy fay du pay dakk te itam moom rek moo mën a fay te nangul na sëriñ bi ko dugg nag ci loo xam ne dafa àgg dangay àgg sëriñ bi ko waxal boppam wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal nee na boo duggee ci koo xam ne wala nga aju ci koo xam ne yegg na da yegg rek te sëriñ moom ñun ñëpp xam nañ ne yegg ci borom bi subhanahu wa taala jëfam borom bi nangu ko kon ku sa jëf ci jëfi sëriñ bi na la wóor ne sunu borom nangul na la sunu jëf te dana la fay ci barkeb sëriñ bi nga xam ne moom moo tax nga doon jëf na ko kiyee kon sunu xol sedd na sëriñ maam Thierno ñu ngi leen di sant di sant mbooloo mi di ñaan nga jottali santu sëriñ bi ak ngërëmam ak ñaanam boo xam ne mënee su koo wax na ko sëriñ bi waxee mënee su ko wax itam ni mu ko yëgee noonu ak ni mu nekkee sunu xol waaye lii ab junj rek la ci ak itam war leen ne liggéey bii liggéey la boo xam ne bu am solo la te li tax sëriñ Fàllu mii imaam ma wax ko mu ubbee alxuraan aaye bi mu ubbee ni ma ko waxee doy na sëkk ci mbégte ak cant ci koo xam ne yaa ngi jëf ngir yàlla waaye moom la sëriñ bi jiital itam ngir gone yii war a jàng fii alxuraanul karim mu jiite liggéey bopp bi ngir ñu tàggal leen jox leen yarub murit jox leen njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu ngir ëllëg ak si biir ñu war a ñu mën a wéyee liggéey bi ndax sëriñ bi kat ab taalam du fay bu mukk faw itam muy nekk ci ay loxo kon nag dañoo war a waajal loxo yoo xam ne ñoom danañ mën a war a mën a wéyal liggéey boobu yi kon daal jàpp naa ne liñ bëgg a wax moom mën na ko wax waaye cant gi amul fu mu yem sëriñ bi mi ngi leen di ñaanal rek di leen ñaanal te mu wër leen ne ñaan gi itam bu borom bi subhaanahu wa taala nangu la fii itam ni ngeen ko xamee ay jàngkat ngeen di borom yi xam-xam feeñ na ci liggéey bi feeñ na ci liggéey bi waaye sëriñ maam Thierno mi ngi ko jiite moom it ñu ngi jottali cantuk sëriñ bi ci moom ndax sëriñ bi ku mën a nos mbir la lislaam dafa organisé wu lu nekk dafa war a tegu ci yoon te jullit lu muy def daf ko war a def nam gën a rafete loolu la ñu sallallahu alayhi wa sallam jàngal moo tax Cheikh Mamadou Mountakha bi mu yéenee liggéey bi dénk nu lépp lu aju wàllu njàng mi ñu koy wax pédagogie dafa yëkkati lépp loo xam ne moo aju ci wàllu liggéey bi dénk ko doomam ji waaye taxawaay bi rafet na ku ñëw fii xam ne loxo yi ñu ko tegoon loxo yu xam liñ leen dénk la waaye yu ci dem ak pasteef lañ yu ci dem ak yéene lañ yu ci dem ak xam-xam lañ kon nag yéen na ngeen xam ne na ngeen dollee jàng xam ne kat sëriñ bi lim bind kenn xamul nu mu toll nun ñi am xewal laay wax du ma wax nattu ñu am xewal yi di gëstu ci moom ba fii ne waxuma la xam lim bind waaye kenn mënu ko pekk li li li génn rek ñun ma mënaguñ koo kii waaye ndaw ñi da na bàyyi xel ñépp la bindal waaye ndaw ñi nag da leen a bàyyi xel lool bind téere yu baree bari tasawudu sixaar tasawudu shubaan nax ju xadaa il xaaj mu nawiru sudur mu layinu sudur téere yoo xam ne boo ko doon lim kenn xam nu mu toll waaye bi ci njëkk rek bi ma njëkk tudd rek mën naa caa wax ñaari bayit yoo xam ne dafa ne wax ne ndaw ji nañ yitewoo xam nañ yitewoo ak jub la jiital ndax jub moo jiitu waaye nañ yitewoo xam xam-xam bu am njariñ nañ jiitoo ab yar fonk ndigalul waajur taqoog nit ñu jub ñu baax ña te mooy tandi ko àndandoo yoo xam ne gënuñu yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda njub te mooy njubug borom bi subhaanahu wa taala te mooy assiraat al mustaqim loolu rek mooy yoonu sëriñ bi wa bil ulumi ishtaxilu wa bil ulumi ishtaxilu na ngeen fonk xam-xam waaye nag waxut xam-xam benn xam-xam yi la wax kon bépp xam-xam bu am njariñ nañ ko jàng bépp xam bu am njariñ am murid da ko war a jàng te it alhamdulilah liggéey bi xamee nañ ci loo xam ne ndekete taalibe Serigne Touba yi lépp lu mat a xam wala bépp toolub xam-xam ña nga ca te ci jàmbaar waaye nañ gën a wéy loolu yoon woowu la ñu Serigne Mountakha joxoñ fii ne am nañ euh, liste boo xam ne li ci nekk ci ay universitaire nekk ci àdduna bi université boo xalaat ci àdduna bi taalibe Serigne Touba nga fa yoo xam ne ca ña ca gën a kawe lañ bokk ñoo jokk bokk ci liggéey bi wax ne ñun liñ doon ñaan mooy foo xam ne manees na faa li maanaam liggéeyal sëriñ bi ci lii nu yàlla sarax ci xam-xam te ñoom ñëpp daa mel ne dañoo déggoo ci baat boobu la ñuy wax kon yéen yéen a ngi si waaye anil huda wa anil huda wa bil ulumi bépp xam-xam kon alhamdulilah bi ngeen jógee polytechnique <laughs> kon ñu nekk ci médecine ba ñoom itam institut supérieur des sciences et métiers de la santé dañ koy ubbi bu yàggut ci bâtiment Touba ci kanam ba lañ ko bëgg def moom itam ay professeur de médecine ak ay étudiants yu nekk ca yu koy jàng ñoo ko def UFR euh, agronomie léegi tey ñu taxawal génie mécanique danañ ko fi taxawal te yooyu yëpp ay taalibe Sëriñ Tuubaa ko taxawal loolu kon wabil ulumi ji sëriñ bi waxoon dégg nañ ko nañ ci gën a wéy te soññi ci ndaw ñi nañ jàng bu baax te xam li ñu jàng te sellal ko nag te jàng ko ngir yàlla ngir dëgëral lislaam ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci toolub lislaam waaye ngir yaatal xam-xam ngir ñëpp mën koo jariñoo kon seen seen seen daayira bii yëpp am solo waaye bii nag moom li mu symbolisé dafa bari defe naa ne liñ ci war a wax mëneesu ko mëneesu ko wax te bi ba mu jàngal li tax sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha të tërale liggéey bi nii dafa wax ne na ngeen jiital xam-xamu tawxiid teg ci xam-xamu fiq teg ca xam-xamu atasawuf moo tax sëriñ Fallou ubbee alquranul karim daari alquran ji incha allah lay njëkk ubbi teg ci UFR étude islamique ak langue arabe waaye ñëw na ci institut supérieur de sciences et métiers de la santé ndax dafa waxoon ne euh, dama koy tënk rek ndax bay di daa gudd waaye kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafiya fi wa kulli ilmin bi manaafiya fi bu ngeen jiitalee xam-xamu tawxiid jiitalee xam-xamu fiq jiitale jiitalee xam-xamu uh, kii nag uh, kii uh, kalaaq di wal fiq yi waka tasawuf mooy al ihsaan mooy xam-xamu tasawuf moom itam institut supérieur um, boo xam ne day jàngale wàllu murit ak tasawuf soufisme ak ak murid ya moom itam danañ ko fa ubbi waaye sëñ bi daf caa ne bépp xam-xam bu am njariñ kon waaw leen góor a waay yéen waa polytechnique waaw leen góor a waay waaw góor nag boo ko waxee góor day laxasaayu laxasaayu waat leen kenn ku ci ne yéen fu mu jàppoon ne fa lay yem ci xam-xam na ko yokkaat ingénieur yi nañ yokkaat <laughs> nañ yokkaat defi doctorat ñeema doctorat nañ defi bu fekkee bu fekkee agrégation am na ci <laughs> bu ci amutit ngeen defaat yeneen i yeneen i spécialités yu wuute ndax sëriñ bi daa am lépp sunu borom da ko may waaye ngir ñu jëmmal ko nag mbooloo mi dañoo war a waaj mm-hmm. ndax Cheikh Modou Mountakha kat nee na taawu leen ko bu mu laal suuf bu mu laal suuf nag ka koy war a taaw ay loxoom daa war a set loxo yooyu set nag mooy ya waaj mooy am xam bu sell bu tegu ci njub xam-xam boo xam ne ak ragal yàllaa koy lal waaye pas-pasum nag ànd ak Serigne Touba ci liggéeyam bii lal ko kon te pas-pas boobu nañ ko yóbbaale te di ko feddali kon feddali leen laxasaa yi te gone yi ñu jàngal leen ndàmpatal leen ci yoon wi ngeen jaar yéen mag ñi itam ngeen gën a gën a góor góorgóorlu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan lépp jëf ji daal xam naa ne sunu borom nangu na ndax ku jëfal sëñ Tuubaa ko ndax sëñ bi moom daa nangul sunu borom da koo nangul ba noppi ku dugal sa biir ci jëfam moom loolu kon sëñ na ko waaye nag yëpp yitte wala jëpp aajo joo xam ne indaale ngeen ko fi indaale nan ko fi yal nañu ko sunu borom fajal ci barkeb Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ci barkeb weeru safar wu màgg wii te lu mu réeréy ci noonu lu néew la ci sunu borom lu woyof la ci moom yàlla na koy def ci barkeb Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi